tey nga xam ne ne dañoo ci tiktok bi ñuy bakken fort duma ko nangu par respect pour moi et ma personne pour yow tamit wala duma ko def suma ma ci erreur sax toñar gi nga ma parce que war nga ma mané nek nekk nga ci erreur mais ma lay nuyu nga may ne non bu nuyu damay jouer man nga kon dama man jouer ni c'est vrai que je suis j'ai l'air toute une comique mais y a rien de comique chez moi ndax dama tàngu xol ya awa aka maa tàngu xol li ma la bëgg wax yalla xam na ne dinaa la wo wax la ko ci souf xawma nak ndax dig ma jël wala doo ma jël. la ma tax ma la jël yow. waaw kay kon kon kon baxna ah. mais bo mais il faut ma wacc parce que depuis sank awa ngi taxaw ma ngi ci live bi buguma daw sama responsable yéen ngi gis ñong may wo di ma woo di ma lu bokul ci sama habitude ni nga ragalé TikTok non la ko ragalé mais damay taxaw waxat sama sœur parce que lolu moma war. sa sœur yi ñom lay waxal pour ñu dégg question buñ ma posé. ma ne yaa awa problème na am nga woo ma loolu dëgg wax noonu dama koy dëggal fii. waaw mais loolu tamit non loolu fi mu toll affaire natt lañ fi la ngeen gën a yomb mooy xoolal nga may ko rek déglu ko. wax ba tëj sa